soxna si da doon sëy ak sa boroom kër ñaari at ngeen am jafe-jafe mu ne nañ ko delloo 400000 mais bu njëkk ñu la joxoon sa yaay dajale 200000 jox ko bëgg ko joxaat 200000 nga bañ est-ce que mën nga ñëw ci li tax moom mu taxaw yow nga taxaw ne na la may sa baat jafe-jafe yi lan la. waaw bi ma nekkee foofu noonu daf ma daan méttital lu ne na ma daan def ba su ma daan jàng war a jàng sax daf may wax si ku bëgg a tëdd ak man lu ne mu ma koy def loolu moo tax ma ne xaas buñ ko bu mu delloo. maanaam daal fu mu toll rek day bëgg seeg yow. di seeg man tout le temps damay war a jàngi sax ba war a jàngi war a jàngi mu tëj néeg bi ni ma ni ma doo jàngi nekk ak man lu ne mu ma koy def ba day woo sama yaay su ma waxee su ma ko waxee jàngil mu toog fii nii di jooy moom loolu lay wax sama yaay. te te fekk ni moom dafa bëgg a tëdd ak man lu ne na may def lu ne. kon daal moom moom du tux du naan. du tux doon na tux mais arrêté na avant mu may tàq nee na daan mais tuful woon mais daal gis nga ni ni nga bëggoon seeg yow maanaam kuy seeg mala sax kuy seeg mala sax moo ko tene amul lu ma dul def lu ne ba pare su génnee comme beneen nit li muy dund ak man ak su taxawee fii nii da nga naan kii nit boobu bokkul mhm. donc daal moom dafa doon maltraité di abusé ci yow parce que même bu dee daf laa takk sax ci farata ak sunna li nga xam ne moom lay seeg yow yow jàpp nga ni dëppawul ak diine sa njàng aussi Euh, yàq na ko. waaw bëgg a yàq sama jàng instant bi sama jàng su ma si farlu woon ba tey yàqu na na foofu ba ma fa nekkee jàng ma dara dara amul dara lu ma jàng ren jii nii laa waroon def bakk amul dara lu ma jàng tout le temps muy woo sama parent day faatu def na def def na lii def na laa te loolu amul lu mu yàqee sama dara lay wër bëgg tëdd ak tout le temps amul wax bu bu ma dul waxal damay farantu lii bëgg di ma sosol am lu ma waxul sama paas ba Dakar. sama papa ni ko ñëw fi dama laa soxla mu paas ba Dakar amul lu mu fa waxul amul lu waxul sama papa sama nag ni ma sa sa diggante moom bu fekkee moom li mu lay waxal yow yaa ko def di nga dinaa génn si yow ba seet ci mais bu fekkee li nga koy waxal moom defu ko moom dina la bàyyi léegi ma demandé ko divorce mun ma mun ma bala ma lay may sa baat li nga dellu li ma li ma defoon si di di ma ko may ma doog laa may sa baat wala dinaa la bàyyi di la fi misère la ba keroog ngay dee dem takk xale bu ndaw ta doo si man dara te kenn du si man ëppoo ma ëppoo foo ma yóbbu tamit foo ma yóbbu dinaa dinaa la fa dugal dinaa la suuxat te fu prison foo ma yóbbu ay avocat nee na moom ñëpp la xam fu yóbbu fu mu dem taxaw ba wax man man maay suuf ak sama famille ndax nee na moom dafa dafa am ay connaissance te làmmiñ ñoom rëy na fu taxaw ba wax ndax man duma wax fu taxaw ba wax benn moom dina wax fukk ba dugal ma te loolu noonu dafa amul te nee nga nee nga ñeenti jabar fase na ñeent balaa mu lay takk yow. waaw man man may fase na ñetti jabar man maa ñeenteelu jabaram. ku mujjee takk ñaari weer la am ak man. te mënoo sëy ak jigéen ku ne nga ni dafa sik ku ne dafa sikk loolu mënta nekk. donc daal yow ci loolu nga xam rek mooy sëy bi. Mhm. Eh, wàllu lekk ak naan est ce que daawul la puni wala tere la génn. comme bitim réew la. xamoo fa kenn. xamuma fa kenn daaw ma dem fenn fu ne danaan woo sama ma yaay naan ko fu ne laay dem wala su ma toggee teg ko foofu noonu. day ñëw lekk lépp su ko defee ma dem di jënd fonde moo sama yaay ne ko defaat mu ne ko sol na tubayam noonu ba génn dem. façon wax vulgaire sa sa amul lu ma dul sosal day farantoog lu ne Facebook ak lu ne dem na ba mu sama téléphone wax bu bon bu ne mu waxal ma ko pour bañ la moom xam na ne man du ma wax ba ma demee ba sës nag. si laay doog a wax. am na loo xamante lu bari nii sax ni ma daan tëddee noonu daan yow sama tànk lu ne mu koy def loolu noonu sax mënu ma kaa wax sama yaay ndax mënu ma jàkkaarloo sama yaay di ko wax yéen nii bi ma demee ba sës laa koy laay doog a wax nii parce que dama kaa ñaan baat mu ni tant que fayu ko du ma doog a fase pour lan te moom pour lan lay takk bi mu lay takk. waaw euh, daf laa fekk ak doom wala da laa fekk ak sa ndaw est ce que bi mu lay takk fekk na la. fekk ma xale bu ndaw na ma fekkee. xale bu ndaw na ma fekkee mosum xale bu ndaw. mu jël sama ndaw bëgg ñu fay ko xaalis loolu pour lan te moom ñaata te fay nañ ko 200000 mu nit nee na tant que 200000 yi matul kenn du ko fay loolu noonu pour lan léegi yóbbu na 200000 am beneen 200000 bi ñu ko yóbbee si papa mu ne du ko laal ndax nee na bi ñu koy jox 200000 yooyu fekke wu ko te papaam tamit wax na dëgg papaam nee amul kilifa. comme takk dalay fase mhm. maanaam daal papa ji dafa dégager ay responsabilités mhm, ñëpp mhm. alors euh, sëy ngeen ñaari at deux ans waaw deux ans deux ans yi fan ngeen ko sëy fii Sénégal wala foofu foofu noonu neuf mois laa fa am bu ma fa nekkee foofu noonu laa naroon a nekk parce que dafa ma takk ni ma léegi moom jabaram si wetam lay nekk ndax foofu noonu lay liggéeyee man ma bool lu ma neex lu ma naq mun ma comme que loolu la fii da nga am ay nawle su ma la yóbbee foofu noonu su ma la xewalee su ma la yóbbee foofu su feet ñëwee ma xewal la ñu jàng ba ma tuddee amul un mois deux mois ma commencé ma indi ay problème alors euh, jafe-jafe yi lan la maanaam wax nga sànq ne euh, ci wàllu lekk wala wàllu naan wala da kii mais euh, ci li nga xamante ne mooy bi ngay sëy moom lan la la maltraité loo xam ne yow tax na nga gën a bëgg a génn ci sëy bi. waaw loolu sax moom moo ma poussé bu fekkoon sama diggante moom mën na maa yërëm. ah defaluma dara man ma toog mu muñal ko xam nga ñun ay jigéen nan ñun ku ñu lii rek nan mais tamit nga nekk xale bu ndaw defoo si moom dara di ko waxal ay wax yoo xamante nii dafay farant ah mu woo sama man lii laay def te man def ma wala mu ni sama yaay mu ngi nii dafa war a jàngi ah mu ngi nii dama ni ko jàngil mu bañ mu tëdd si néeg bi du jooyul amul dama fay dóor amul lu ma fa deful lekk sax da du ko su ma naree jox lekk dem jox ko ay nit moo gënal wala mu teg fa xaas ba dem soo ko fa tegee su ñëwee fa la koy fekk ba benn xaritam un moom moo ko xam benn xaritam kooku kooku noonu moo dem ba amul kooku lu ma defalul mu dem ba xam ko yaa ngi dégg mu mu ni léegi kooku noonu damay doxaan ndax li may defal te ñoom ñaar nii nan def te man koo noonu moom moo dem si moom naan euh, sama jabar nangam nii lay def ndangam ak nangam kooku ni ko sama tonton tonton laa koy wax sax mu ne ko yow kii nga xam sa jabar du siggi xool nit amu fi ndey amu fi bàyyi nga léegi yéen amu leen doom. non non doom. leen doom sëy ngeen ñaari at 9 mois yi moom nga def ak moom bitim réew. après si laa ñibbi si ñibbi. bi ngay ñibbi si fan nga jaar. bi may ñibbi si moom moo moom jour boobu noonu dafa woo sama benn copine. moom comme dafay woo daal un deux moom su defee daal day njëkkante di woote mu woo papam wala yaayam wala muy woo samay xarit di ma jox ak moom du sëykat def na li def na la jour boobu noonu sama benn copine fii la dëkk Thiès ñoo bokkoon classe moom it am na jëkkër mu woo ko ni ko nangam ak nangam nanga ko waaw sa waaw sa xarit bi waaw du may toppatoo faalew ma lijjantiw ma xamul si lu ma nekk day def li muy def lijjantiw ma fii daal lay tëdd ki ku ko xool yërëm ko du lekk du naan fii lay ku ko gis mel ni man liwalu ma ko dara léegi kooku noonu woo ma mu wàcc rek ma dal si kaw ma ne ko yow dangaa mënta bàyyi nit ñi ngi may jaxasee ah kii nii loo ko wax tout le temps tout le temps dangay wax ay nit kii nii lay def kii nii lay def te li ngay wax dara amu si mun ma su la naqaree nga faj ko ma ne ko ah nu ma koy fajee ma ne ko damay ñibbi léegi tey mën ma fanaan fi mu woo sama yaay sama yaay ni ko comme que noonu la demee indil ma léegi sama doom ma dajale sama bagage yëpp jour boobu nag jour troisième jour koor la ma dajale sama bagage fii nii bi ma fi egg ay 7 heures du matin élèves yi ngi doon jàngi ma ñëw ku ma dis foofu danga ma yéeram après mu indi fii sama yaay mu ni mu indi sama yaay ni mu ñëw fii ni sama comme que mënu maa may jàmm mënu maa may salaam indi naa ko si say loxo yaa ngi dégg mu mu ba sa suba ga mu ñibbi temps yooyu noonu su toogee ay un mois deux mois ñëw tout le temps mu ma fi indi ay problème tout le temps mu ma fi indi amul lu ma fi dul waxal un deux trois mënu fee ñëw te ñibbi indi lu ma fi ay problème léegi béykool ibbee si vacances yi la woon béykool ibbee mu ne sama yaay damay yóbbu sama jabar sama yaay ni ko sama doom mënta dem mu ne ko kon bu fekkee mënta dem déetuma ko fayal jàngam sama yaay ni ko soo ko sooyalul jàngam man ma fayal ko jàngam man mi ko fayal ba mu toll nii man mën naa continuer di ko fayal sama yaay moom mooy jox ndékki lépp sama yaay moom koy jox lépp fu mu wër ni ndef moom defal naa ko lii defal naa ko laa te musuma def sama yaay moom may fayal chaque fin du mois moom may fayal 15000 inscription noonu